jërë ngeen jëf mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah xam ngeen ni kon egsi nañ euh, si bis bu màgg bi ni leen ko doon waxee ba ba léegi di bis bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké woote na ko di euh, bisub Zikrullah xam ngeen ni euh, fii si Daarul Minan yéen a ngi dégg si kar si foo leen mën di toll rek doon nag kuréelu ko boppam gi ci biir ak kuréel gu mag gi nga xamante ni moo ngi si penc mi sëñ Mamour fii moom kenn mënu kaa nettali lu dul rek nit da siy teg sa bët seen spécial Jazboul Mouride tey xam ngeen ni fii lañ ko fas yéene defee ci daarul minan kër Cheikh Mouhamadul Mountakha ci bisu zikar bi mu wootee di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te di ko ñaanal sëñ Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Mamour. jërëjëf sëñ Aline di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem euh, kilifa yi nga xamante ni bii gis nga bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha sàkku na lii ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. kenn ku ci nekk ak foo ay mën a nekk rek da nga fa bàyyi ko ñëw ci bis bi tey àllarba ji li sëriñ bi waxoon loolu lañ jëfee eh, tàmbali nañ nag sikkar si ndax sëriñ bi waxoon na ne bu 16h jotee ci ngoon buñ ci teg benn minute waaye ba 16 jotee rek ci lañ daal koy samp defe naa ne koy wàccee mooy bi ñuy noddu biñ noppee ñu yëkkatiwaat ko te loolu lañ fas yéene incha fanaanee ko ba suba ñu yendowaat ko ba waxtuwaat 8 16h ci eh, ci tegaat a gis nga ne waxuma la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye wëllëre yi ak kilifa yi ak kilifa yi sant Mbàkke tey foo sànn mbatt mu tak gis nga sëñ Moussa Nawel léegi ñu dugg si gis nga mboolem njabootu sëñ Tuubaa Seexul Xaddim kenn manqué am na ci ñoo xamante ne bii ñi ngi toog seen kër fi ne di dund si kër si ndax xam na ne télévision yëpp ñu ngi ko def en lépp rek ngir euh, bëgg barkeelu ci jëf jure ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, def na ko euh, lépp rek ex wane nag ak feeñal liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall Baay bi Muriid ndax Cheikh Ibrahima waxoon ne yoon bi ku ma jéggi weesu nga digg ku asuul maa ngi loolu la sëñ Muntaxa taxaw ngir feeñal ko ndax turu yàlla bu ko sàkkoo ba pare na Cheikh Rafal da ci am tur bu yaatu ndax lam sàkk woon mooy dafa wax ne dama bëgg a sant sunu borom ci boole gi mu war sëñ Tuubaa ma bëgg ñu santale mu ko ak turu yàlla waaye dama ko njukkale maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mourid gis nga boobaak léegi tur ngi ci njabootu Cheikh Rafal gépp ngi toog mboolem Cheikh yëpp ngi ngi kon nag noo ngi ñaan bu baax a baax di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi ci barke tur wi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbende mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal bi mu yabal ak njabootam te kenn manqué wul ñëpp ñëw nañ la ko tàmbalee kër Cheikh Modou Moustapha Fall ba ci kër Ngunda Sa bi ga ku manqué ku des Cheikh yëpp ñëw nañ wëllëre yi ñëw nañ waaye nag i ndénkaan yi nag léeg-léeg nga daje koo xam ne da xam ne fële lay wuyoo waaye Cheikh Ibra Fall lañ mënta ni ma yeew ci nag ndenkaan ci gétt jàmbur yi Cheikh Ibra ne su ma ko yeewoon gétt yi raaf ndax sama yëkk yaa ci gétt gaa bëngeelu ñooñu tey boo doxee ci biir gis leen ci kenn ku ci nekk ma nga laxasaay man gis naa ñooñu sax njabootu Sëñ Tuubaa Seexul Xadim kenn dox seen digg waaye tey seen dara ngi seen digg ña ca sàmba waaw ña nga ca sikkar say wër waaye Cheikh Ibrahima Fall ci boppam moom la sëñ Touba joxañ murit yi ngir ñu war koo roy te lii firnde la ci sëñ Aliou Badara sëñ Mountakha taxaw na mu ngi feeñal loolu ndax waxoon na ne dama bëgg turu yàlla wi ñu tudd ko waaye waaye waaye ndax damaa xam cër bi maam Cheikh Ibrahima Fall am ci tur wi te tey loolu feeñ na. te sëñ Mamour jërëjëf yamul si wax li ni mel waaye daa génn toog jàkkaarloo kuréel gi mbokk yi ni ngeen koy gisee nii si image yi Cheikh Mouhamadul Mountakha ci taar bi ci mbaax gi ci wilaya gi macha allah yàlla sunu borom gën a yàggal xam ngeen ni mu ngi nii toog jàkkaarloog kuréel gi ñuy yëkkati euh, turu yàlla wi mu koy dund kon ni ko waa kër maam Cheikh Fall di dundee. waaye kon ni ko mboolem mbokk julli di dundee ni nga ko waxee fépp rek ci àdduna bi ndax nag ñëpp a ngi koy def en direct di ko dund waaye sëñ Mamour li gën a yéeme ni ñu koy dundalee fii ci biir réew mi moom lañ koy dundalee fépp si biti réew waa France ñu ngi koy dundal di ziar bu baax Serigne Cheikh Fall Khady Gueye waa ñu koy dundal di ziar bu baax Serigne Manel Fall waa Italie waa Espagne waa Portugal maanaam waa Turquie bàyyiwuñ benn kuréel ñu ngi koy dundal biir àdduna bi ndax nag sa moo waxoon fépp waay nekk di doxal ni mu waree jàppal ni sa foofee def nañ ko muy sëg Touba kon nag fu mën di nekk rek tey wéyee ndigal di bàyyi tere yi mel na ni ñu ngi si dëkk bu sell bi di Touba. Ah, waaye am na sax xew. mooy am na ñoom dañoo jël vol vol lañ jël avion ngir ñëw fekk si. dégg eh, ku mel ni sëñ Manel Fall. waa Dayratu Abrar di Club House di ay jàmbaar lool di ay jëfkat. kilifa yu bëree bëree bëri bokk ci biir mbooloo mi sëñ Manel fi teewal moom États-Unis la bàyyi ko Euh, ñëw na barki démb ci guddi ngir fekk si turu yàlla bi bëri na ñoo xam ni ñii Barcelone lañ bàyyi ko ñii Italie ñii France ngir ñëw fekk si jëf ju ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy jëfal maam Cheikh am a wax dañu dégg ko. waaw waaw nag ndax itam wax dëgg euh, ñun day man de maa ngi fàttaliku fekkewu ma waaye 1963 koro ba jumaa ji yeggee sëñ Fallou ne ko xam soroom ni ma ko tuddee ñëpp ku ne xel xel xel lu ne ñu xalaat ko mu ne sama baay Cheikh Ibrahima Fall ngi nii man da wax dëgg fekkoo loola waaye lii ma mos moom nuru na ma la ma mag ña waxoon dafay mel ci jëf jooju nga xam ne sorol bii ci kaw Lamp Fall bépp ko seen mu tudd ko maam Cheikh Ibrahima Fall jëf ji tam ci yàlla yi àdduna dootu yàgg mukk bañ fàtte ko ndax jëf ju ne fàng la yoo xamante ne bii yoonu mu jëpp nga koy dund waaye lislaam jëpp nga koy dund te njabootu Sëñ Tuubaa jëpp nga koy dund àdduna bépp nga koy dund tey ndax sut internet yi télévision yi ñëpp nga koy def en direct ñuy samp turu yàlla yoo xam ne te tur bi nag la ma wax de amul daray folklore amul daray caaxaan turu wér lañu tudd laa ilaha illallah joo xamante ne bii ñëpp ñi ca kaw dañ koy dégg ñu ca suuf mën koo dégg ñëpp mën da ci barkeel loolu la Cheikh Mouhamadou Mountakha Sakho yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ànd ak jëwriñ bi Serigne Abdou Fall moom Serigne Modou Mbenda mbokk yi kon ñu dox ko incha allah fas yéene kaa wéyalee nii ba suba si waxtu wi neex dem neex na suñu borom mbokk yi kon ànd ànd ak yéen teewlu Zikrula wane leen ak kilifa yi jëlal leen yenn si ay interview te dellu si waat ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bis la boo xam ne benn bés bu ko féete kaw ci yoonu mbon yi du laahi ci lislaam sax amut ndax bis boo xam ne xalifa général de Mouride Cheikh Modou Mountakha yal na ko fi sun borom bàyyi moo jàpp bis bi ngir ñu njukkale ko Cheikh Ibra Fall di tudd yàlla waxtu ba waxtu wa dellu siwaat ëllëg loolu mës la am ba jamono sosoo ba tey loolu mës la am te Serigne Touba nee na fu kullu man saalani fa lii jawaab xabla wadaatu jaadulu ahlul kitaab baat bu ne lu màgg màgg baatub laa ilaaha illallah moo la ëpp doole gën laa ko we Sëñ Tuba ku ko weddi demal ca la jëkk wala sikru lay akbaru wallaahu yaxlamu maa tasnahoona kon bis bisu paju aajo la bisam ngërëm la di bisu Cheikh Ibrahima Fall. ñu defe ko ci Touba fii ci Daarul Minan di dëkk boo xam ne kër goo xaye sëñ Touba ko sancoon rafaatale ko Seex Mamadul Basiir tey doomam ji nekk fi di xalifam sëñ Touba woote bésub Seex Ibra kon Mbàkke duñ man lu dul sant ko ak ñaanal ko ndax bés bi moom mooy bésub faju aajo ci saayir ak ci baatin kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñaan suñu borom yàggal la fi lool te nga dëgër mbay mbay sëñ Muntaxa nag daa yëg ca yëgukaay ba moo tax mu delloo batt ca ca ca ndaa la maanaam tur wi mboolem li bàyyi ko ci sunu borom jëm si ci jaam ñi moo ci gën a màgg turi yàlla mooy li gën a màgg loo xam ne leneen lu dul moom rek mu ngi ci suufam loolee gën a màgg sëriñ bi da daa yëkkati ki gën a màgg ci moom muy Cheikh Ibrahima Mouride ma teg ko ci loxoom nga xam ne foo dégg turi yàlla sam xel dem ci Cheikh Ibra moo tax bi sëriñ bi di santu la boromam daa wax ne nañ tudd turi bi te njukkale ko Cheikh Ibra loola nag war naa dal xelum képp ko yaakaar Cheikh Ibra war naa sedd xolum ku yaakaar Cheikh Ibra waaye war naa doon ak laxasaay gu la soññiwaat ndax dégg naa ci sëñ Mamour muy wax ne sëñ Mountakha daa waxoon ne Baye Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama bopp waaye bu ko dégg doog bàyyi mu jàll xoolal sëñ Mountakha mooy kan xoolal ni mu fonki boppam xoolal fi fi ko pastéefam yóbbu ngir xam boppam foofee mu toll nag foofee la yëgee ne Baye Fall bu dëggal moo ko gënal boppam kon Baye Fall bëggal mooy kan te nun ay Baye lañu waaye kon li ñu dese suñu digganteeg yegg foofe mooy doole dëggal rek waaw kon yàlla nañu Cheikh Fall gindil boppam waaw ñi ngi sant bu baax sëñ Mamadou. Euh, sëñ bi naka ngeen euh, taxawoo bis bi di bis Zikroulah bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sant na ko njabootuk sa maam Cheikh Ibrahima Fall Baye. waaw kay jërëjëf sëñ Mamadou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibi yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar ci fii ci kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalifab Serigne Touba waaw mu mel ni nag euh, liggéey bii nga wax nga xam ni Jazboul Mouride sëriñ bi sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mi nga xam ne moo toogee jotaay bi suñu maam Cheikh Ibra Fall ñi ngi koy nuyu te di ko siyaare te di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak ku wér moo sangam bii ci biir di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachirou nga xam ni mooy ki nga xam ne moo xam wàccuwaay yu maam Cheikh Ibra Fall ba euh, séddu ko ko ñu ciy sant suñu borom nag te di leen ñaanal ñoom ñaar ñooñu ñu yàgg fi te ànd ku wér sëriñ Mamoun mu mel ni li nga laaj dafay lu am solo daayira Jazbul Murid sëriñ bi daf leen doon liggéeyloo ci biir euh, ndigal li nga xam ne dafa rot jugee ci Cheikh Mamadou Mountakha mu wax ne dafa bëgg a sant suñu boroom sant Cheikhul Khadim te jaare ko ci baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi te njukkale ko nag maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne lawlaahu kenn du jariñ ci Serigne Serigne Touba mu mel nag Cheikh Mamadou njëkk a maanaam mooy xalifab Serigne Touba bi nga xam ni mboolem yi nga xam ne dafay ay njariñ yu nëbbutu woon sunu borom dafa def tawféex jaarale ko ci moom mu fas yéene leeralaat loolu ñëpp ba àdduna bépp man cee jariñu bokk na ci li nga xam ne defoon na ko fi ci jamono yee ñu weesu muy bisub xasida bi nga xam ni daf koo kenn ku ne xam ne xasida murit yëpp a ko maase fonk xam li muy jariñ waaye nag Cheikh Modou Mountakha soññaatoon ci murid yi ngir ñu ci seen yitte ak seen pëste ba tax mu dajale woon mboolem nit ñi ñu taje woon fii ci Touba yëkkati eh, jàng fi xasida yooyu gis nañ tam la mu jur muy jële fi mbas mi woon ci réew mi indiwaan naataange ci réew mi tey jii nag mu dellu siwaat ci lu mel noonu li mu dellu si mooy lan baatub laa ilaha illallah bi nga xam ni lu di wax ci aw làmmiñu mu ciy génn rek laa ilaha illallah mooy la ci gën loolee nag sunu borom moo ko njëkk a wax ci alquran ndax dani wala ak akbaru kon si tudd baatub laa ilaha la mooy li gën a màgg ci luy génn ci gémmiñu doomu aadama loolee nag sëriñ Tuubaa tam indiwaat ci leneen loo xam ne ñun dañ cay jaaraat gën a fonk bis bi ndax dafa wax ne amma dawaamu sikru fahuwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksaru nee na maanaam baatub sikkar day mooy li nga xam ni mooy li gën ci li ab murid di baril wax ne xat qultu zalika bila israari wala ubali bi zawil inkaari nee na loolu man maa ko wax man cheikhul xadim te xa maanaam moytuuma ci kenn ku jóg di ko weddi yëmu ca da caa teg ne fa kullu man ni fali jawaab xab la wala tijaaduloo ahlul kitaab nee na ku ma ci laaj nag am naa réponse bu ma la ci tontu bu leer nañ nee na mooy euh, wala zikrullaahi akbaru gi nga xam ne moom la alxuraan andi woon. kon nag mu nekk loo xamante ni bii sëriñ bi àgg na ci ne képp koo xam ni gis ngeen ko muy génne ci gémmiñam baatub laa ilaaha illallah bu leen ko jàppee am noon kooku yéen mëtu leen am noon loolu mooy falaatu haadoo man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaaha illallahu kon mbir la moo xamante ni bii Serigne Mountakha moo xam wàccuwaay bi xam dayo bi mu delloosiwaat ñu ci su ko defee nag loolu lim ñu war a jural mooy ñu góorgóorlu ci fas yéene taatan ni ko sëriñ bi bëggee maanaam li ciy wàcc ci ay leer ba man koo jariñoo te nan lañ koy defee mooy tënku ci teggin ak ak akuk dal ak sago su sëkk loolu mooy li nga xam ne moom la ci sëriñ bi bëgg. Euh, kar nag ñu xam maanaam xasiday sëriñ Tuubaa yi nga xam ni maanaam sëriñ bi wax na ni. egg na ci wax ne karaamati xattu yët yi nee na man samay karaama mooy sama mbindum loxo xasida yooyu nag maa ngi leen di xamal li muy màgg màgg bu fekkoon ab taal la maanaam mat mat ma koy xamb ba mu yànj bañ man ba ba yegg fi mu yegg loolee mooy baatub la ilaha illallah kon nañu ko maase xam ñun ñëpp dem na ba sëriñ bi wax naa fa kay fa yenn saa aw yu xaafidul wara zikru lazi xalaqahum wa sawara ana nan la nit ki di sàggane ci maanaam tudd ki nga xam ne yow mooy ki bind te melal la ni nga mel teg ca ne li annahu bidaayatul wilaaya wa wa tarkuhu nihaayatul xawaaya maanaam baatub laa ilaaha illaa mooy tàmbalikaayu bépp wilaaya waaye nag sàggane ko woyefal ko fàtte ko nee na maanaam mooy daytalu mbewte maam fi nit ki mën a yem ci mbewte kon loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko cee tënk waaye nag ma ci soññ sama bopp di ci soññ ñëpp ñu xam ne bis war nañ cee fasal Seex Muhammadul Muntaxaa fasal ci jëwri ni maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ am di Modou Mbenda seenu yàgg ak seenu wér te bis bi attan nañ ko ginnaaw ko Serigne Touba ko ci fasee danañ ko am kon ñi ngi nuyu ñëpp nag mboolem ñi nga xam ne ñooy bunt këri maam Cheikh Ibrahima Fall yi bàyyiwuñu kenn ak kër sëñ Saliou Fall jëwri ni ca nekk nga xam ne ñoom la sëriñ bi di liggéeyloo liggéey bii kenn ku ci nekk ñoo ngi koy fekk fa mu nekk di ko siyaare te di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex ak ndimbal liggéey bi te defal ko nun ñëpp